asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk gi suivre ci Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar tey nag dafa tombeek bisu Kazu Rajab ah Kazu Rajab nag tombe ak dimanche tey màggalu Sëñ Fallu am ci wàllam ba koo xam ne nii defe naa ne moom tur boobu lay woyoo muy Sëñ Fallu moom lañ ko tuddee moo tax tey ñu seet si ko fii ci këram Kër ma Massar mais nag balaa ñuy sori dañuy ñaan yàlla mi nga xam ne moo mën tey maye yàlla na yàlla jële coronavirus bi ci àddina bi ci barke Serigne Fallou Mbacke waaye ci barke mag ñu baax ñi ci barke alxuraan ci barke yonent bi ndax jullit ñaan mooy ngànnaayam dañu moytu tamit comme ni ñu ko docteur yi waxee rek ñu jéem a respecté norme hygiène yi dinañu dimbali ci loolu sëñ Fallou maa ngi lay nuyu di la ci yaar Babacar ñu lay fay bu baax a baax mhm. di am mbégte ci daal gi ñu dalal tey ci suñu bisu turandoo comme ni ñu ko waxee vraiment ñu toogandoog suñu ay nit suñu ay xarit mhm. suñu ay doomu ndey mhm. toogandoo tamit waa njaay production yëpp kon tey boo ñëwee fii ñu pour ñu waxtaan ci bis bi ak li xew ci réew mi Mm-hmm. dañ ci am mbégte bu baax a baax mm-hmm. di ci am contentement bu baax mm-hmm. di am mbégte nag yow ci dalal gi ñuy dalal ndax yow moom ñoo yow sotti seeg def ci la dëgg loolu am na solo léegi fàll su ma ñëwee tey ci Kazu Rajab bi euh, nga woo tey dafa parce que ñu ñëwee ci kër gi ñu ma fi fekk sa ay nit laa fi fekk ñooy bokkandoo di liggéeyandool nga woo leen ci bisu Kazu Rajab bi lu waral lu nga bàyyi ba bisu tey bi nga woo leen waaw comme ndogal yi xew ci réew mi ak nga kàddu gi ma ne tey ndogal yi nga xam ne moo xew ci réew mi actuellement. Mhm. yaakaar naa comme ni ko kilifa yi waxee. Mhm. te comme ñun ay taalibe lañu. Mhm. ndigal ci lañu war di dox. suñu kilifa. xamoon nañu ne màggal kat ku ne fa nga ne mën nga ko faa defee. kon dafay jaadu. ñun ñu woo ñi nga xamante nii ñoom lañuy ñuy liggéeyandoo. woo ñi nga xam ne ñoo bokk Njaay production. woo ñi nga xam ne ñoom lañ liggéey doo suñu bërëbu liggéeyukaay woo ñi nga xam ne suñuy xarit lañ suñu am di jàmm lañ pour ñu toogandoo te yemale ko it nag pour mën a feeteendoo li nga xam ne mooy màggal Cosplayer comme niñ koy feete Touba yaakaar naa feetoon nañ ko mel noonu tey te it loolu lañ ñu doon xaare ndax it buñ ñu tuddee Sëñ Fallou bis bu mel ni am wax dëgg yàlla war nañ cee mën génne tuuti ci suñu ay weccet pour mën koo partager ak suñu ay nit partager ko ak suñu ay taal loolu moo waral woote mais nit ñi mbaa bëri parce que nit ñi gars yi dañuy bañ dajaloo bi de sóoroon nga loolu wala waaw nit ñi moom xam nga ne bëriwuñu <laughs> ay quelques personne ñoo fi nekkoon rek ñoo xam ne nii moom suñu ay nit lañ te it bi ñuy ñëw xam nañ wax dëgg yàlla suñu ay nit ñuy jege lañu euh, seen i dugg-dugg seen i dugg-dugg yemale nañ ko ba nga xam te ni jàpp nañ ne képp ku fi ñëw indaale ngi fi ak wér te it loolu lañ ñaanal Sénégal yi Babacar te it ñu ngi moytu bu baax mm-hmm. gën a vigilant tamit comme ni ko état bëggee mm-hmm. ma gis ne que tamit euh, actuellement yàlla bi def bi mu indee dogal bi yéen en tant que ay promoteur investir seen xaalis euh, ma ma xool samedi boobu ñu jëlee dogal bi Assane Ndiaye moo tëggoon bébé Diène Fourrière mhm. bët set ki nga xam ne mooy Baba Diaw war a tëgg soq gàmmu géey mhm. dimanche ba ca topp xaw ma samedi ba Mor Mbaye ngéwél bi ñëw même dimanche bi Mor Mbaye moo waroon tëgg moo waroon ñëw ci ca dimanche ba mhm. waaw ci même dimanche bi ak Baba Diaw kon mu mel ni kon loolu tamit nekk na lu metti loolu noo ko dundee yow en tant que promoteur yaakaar naa ñun ñoo ko yëgandoo soit sax ñun ñoo ko njëkk a ki nga xam ne sax mooy Baba Diaw ak Mor Baye mm-hmm. ndax ñu dafa fekkoon ñu nekk ak ministre yi mm-hmm. yàlla dogal bi ñu jël ndogal yi suñ kanam lañ jëlee ndogal yi vraiment bi ñu ko jëlee mm-hmm. métti nañ ko waaye nag boo xamee li ne ci réew fi mu toll doo doo ko métti lu da ngay xam ne lu gën ci ñun la lu gën ci ñooñu la teewu na nañ leen masaw bu baax mooy ku mel ni Baba Diaw suñu frère la ku mel ni Mor Baye suñu frère la suñu xarit la su loolu amee dañ leen métti lu bu baax a baax ndax buñ toppee dimanche bay topp su ma jumu Assane Ndiaye moo ma tëgg mhm. waaw waaw moo ma tëgg ba ci topp bi ci topp man moo ma tëgg mhm. ba ca topp Pape Abdou Fall moo ma tëgg ak Sam Mbaye Fall mhm. yaakaar naa noonu lu continuer woon kon lu mel noonu su amee ah buñ man lu rek arrêté suñu ay activité yëpp ñun ndax loolu moo ñu war ndax ay citoyen lañ nekk ci réew mi xam doole feebar bi xam doole jàngoro bi gis dëkk yi nga xam ne laal na leen coono yi ñuy dund kon ñun suñu amee quelques cas day jar nañu gën a jël suñu responsabilité bu baax a baax gën a moytu bu baax a baax a baax ba jàngo jigéen suñu réew mi ba jàngoro ji génn réew mi tay bu ma gis mu mu mel ni yéen en tant que ay promoteur tamit ginnaaw bi ngeen nangoo dogal bi dañu gis que ni ci ay vidéo wala ay image dem ngeen ànd ak ministre bi jël ay don wala ay antiseptique yóbbu ko ko loolu mën ngeen ci dikkal ak andi ci ay leeral ci nu mu demee waaw loolu moom yaakaar naa bi xew-xew bi amee ministre bi daf ñu woon téléphone woo suñu président muy Pape Abdou Fall xamaloon ne ko dañ leen a soxla yàlla dogal na bi ñu départ di dem ci la ko président de la République woo muy Moussa Macky mu ko wooyee xamal ko ne ko bépp activité bu am réew mi muy sport ak leneen bu ñu dañ koy dàq ba jëmi jamono bi ñu waxee loolu tamit mu ñëwaat jóge ci président ñëw fekk ñu fa xamal nañu décision bi la président jël moo taxoon ma leen doon woo fal président kilifa gi jël ko boppam waaw président wooye monsieur ministre monsieur le ministre wax ko xew-xew bi am xamal ne ko activité yëpp dañ koy arrêté ak ndaje yi nga xam ne dañ ko war daje yëpp dañ koy arrêté bi mu waxee loolu vraiment ministre bi ñëw avant ministre bi ñëw sax ñun yëg nañ loolu ndax ñu ngi doon déglu rajo ak télévision yi mm-hmm. bi mu ñëwee wax ñu ko it ñu rafetlu ko bu baax a baax mm-hmm. xam ne tey président de la bu jëlee décision boobu mm-hmm. dañoo jàpp ne décision bu gën ci ñun la bi mu ñëwee ministre bi recevoir ñun ñu toog waxtaan ak moom mu ne ñu li taxan moo woo leen de mooy li xew nii moo taxan ñu woo leen pour ñu waxtaan ci dégg ngeen nag yaakaar naa ñoo ko déggandoo ndax dégg ngeen ni ko président jëlee alors bi mu waxee loolu ñu ne ko ñu rafetlu nañ ko dinañ ci ànd ak yéen comme ni ngeen ko bëggee ndax ñu li ñu ñor mooy jàmm askan wi ndax nag ay ndaw moo ñuy seetaan si te comme ay ndaw ñoo ñuy seetaan yaakaar naa te jàngoo jàpp ne ci ndaje yu mel noonu ci lay gën a yombee kon day yoon ñu dakkal suñu ay affaire ci lañ ko lu dakkal ko bu ñu fa jógee suñu jigéen Adjaratou Ndeye Ndiaye Tyson avant ministre bi ñëw ñu waxtaan réunion mu xamal nañu ne nañu génn ay dons pour def ko buñ ko silee président bi validé muy président Pape Abdou Fall administration bi yëpp d' accord validé ko ñu ne nañ génn benn budget ci li nga xamante ni mooy caisse association bi pour mën a accompagner li nga xamante ni mooy feebar pour jàppale ci ministère sport ci lañ wax loolu Adja Ndoye Ndiaye woo ma yi woo ma kilifa bi comme ñun ñooy trésorier yi ñu ne ma dañoo bëgg génn benn segu temps ma bindal leen seg bi jox leen Adja Ndoye Ndiaye ak Fallou grand ñu dem jënd don yi nga xam ne moom lañ doon jël vraiment génn ay moyens yu takku nag pour lépp jàppale ko li nga xam ne mooy suñu doomu réew jàppale li nga xam ne mooy population Sénégal ndax yaakaar naa ñun dañuy jaayuñ ci population bi comme dañuy jaayuñ ci population bi yaakaar naa bu lu mel ni amee jar nañu génne suñu ay moyen génne li nga xam ne moom nañ am suñu kàttan jàppale ko réew mi jàppale ko li nga xam ne mooy tey kilifa yi nga xam ne mooy nekk ci moo ñoo ñoo ngank réew mi surtout le ministre de la santé jaale ko ministre de léegi ma en tant que trésorier budget boobu mën nga xam mën nga ñu wax ñaata la li ngeen jot a génn waaw budget bi nag boo xoolee ci ndaje mi sax gars yi nu mu ñëwoon ko ko wax <laughs> moo tax daal baaka dama koy def en tout cas daal budget bu takku la hmm. ndax wax dëgg yàlla sec bi ñu ku ne xam na ne wax dëgg yàlla ab sec la hmm. te it yaakaar naa gis nga li ñu wone foofu hmm. jàpp nañ ne li nga xam ne moom moo nekk ci oto bi moo ëpp loolu fuuf kon tey jàpp nañ ne li nga xam ne promoteur yi mën nañ ko seen doole géey nañ ko pour jàppale ko li nga xam ne mooy autorité yi jàppale ko li nga xam ne tey mooy ministre des sports mu jaale ko jaale ko ci moom mu jox ko ministre de la santé mm-hmm. te loolu mooy suñu war loolu mooy suñu wareef ci réew mi te foofu la ñu sénégalais yi xaar am na solo léegi tamit euh, làmb ji donte pose nañ ko ak lépp lu ñuy yëngu-yëngu ci Sénégal tey mais ci balaa looluy am wala ci biir loolu gis nañ fi coowu arbitre CNC ak yeneen détail ci làmb ji jàppal baal yow en tant que promoteur mais en tant que amateur sénégalais mm-hmm. coowul promoteur yi ak arbitre yi noo ko déggee waaw coowul CNC ak arbitre yi Babacar. waaw CNC ak arbitre yi euh, ko déggee. mooy ñu rafetlu ñu ko. Hmm. li tax rafetlu wuñu ko mooy yaakaar naa boo dégloo Sitor. Hmm. déglu waa CNG. Hmm. nga xam ne ay nit la ñoo xam ne war nañoo mën a bañ am problème. franchement ndax Sitor boo waxee mooy def na fi vingt na vingt. vingt quelques années vingt et euh, suñu président Alioune Sarr moom def fi ay vingt et quelques. kon jàpp naa ñooñu. war nañoo mën a waxtaan seen biir. ba lu xew du xew ñaare bi tamit mooy di ñaan kilifa yi ñuy bañ di teel a jël ay décision kilifa yi mooy ñam mooy CNG. Hmm. tey mënuñu wax si kilifa te dugaluñ ci CNG. Hmm. jàpp naa ne su mbir mu mel noonu amee. Hmm. war nañoo mën a toog waxtaan. toogaal waxtaan toogaal waxtaan. autorité yi jël ci liñ ci war jël fu ci ne waxtaan. ba nga xam ne dogal bu mel nii du am. ndax nit su àndee ak yow vingt nangam yu teg jàpp naa nga xëy rek rajo ko. du lu kenn di rafetlu. yow kon ci loolu non man de rafetlu ma ko du ma ne ànduma ci Babacar. ndax CNG peut-être di tax mu jël dogal bi xam na ko. waaye du man lu may rafetlu man. Fall en tant li may am man la concerné. Mhm. du lu ma rafetlu. ba bu ñuy jëlati ay décision su ma sañan. Mhm. ñuy xool di ko xoolaat ndax gis naa ñu jël décision bu me noonu ci kaaw ñax jëye ñu Alioune Seye Junior. waaw waaw Alioune Seye 2. Mhm. jëlaal ko ci côté Sitor. ak arbitre yi muy àndal. ma leen di wax ne ay kilifa. duñ teel a jël décision bu mel noonu ndax yenn décision yu toll noonu soo koy jël dafay jar nga waxtaan ak nga waxtaanal même bu dee day diire semaine bu dee day diire mois nga diire ko ba nga xamante ne li ngay jël décision boo ko jëlee kenn du la critiquer ndax nag làmb yemul ci seen g ak arbitre yi kese yemul ci promoteurs yi ak mbër kese nan sóoraale population bi xam ne nii mooy population Sénégal làmb la yéen intéressé ñor leen te yaakaar naa su problème amee nga leen di déglu. ñuy wax ci télévision yi di wax ci li nga xam ne mooy réseaux sociaux yi mooy internet yi yaakaar naa ne ku ci ne di nga gis la muy waxee ak fa muy kon yaakaar naa ñoom suñuy kilifa lañ war nañ di xool ci ñooñu di leen déglu ba yenn problème yi su amee ñu jël seen ay responsabilité buñ ciy génne ñu génne ci loo xam ne nii ñëpp dañ naan lii lu positif la waaye nag wax dëgg yàlla damaa gis ne ndogal yi dafa euh, jël décision yi dafa gaaw lool dañ koo yàkkam dañ loolu laa jàpp mhm. muy kaaw ñax jay ñu Alioune Sèye junior tax mhm. Alioune Sèye li tax ma loolu mhm. mooy damaa jàpp ne li aw li xew kera li xew arène nationale kera doy na waar doy waar goo xamante ne nii jàpp naa tey ñi nga xam ne ñoo yor ŋànk wàllu làmb ak ñi nga xam ne ñoo yor wàllu secret muy police war nañoo tëju ndax léegi technologie bi avancé na ñu xool la moo war a feey benn par benn képp loo ci mérito ñu jox la ko. mais tey yaakaar naa su fekkee li am am na rek lundi mardi ñu génne sanction sanctionné écrivain te euh, sanctionné benn mbër dafay garaaw ci ñooñu ñàkkul ne sanctionné nga ci koo xamante ne deful dara deful benn faute kon nag ay kilifa lañu ñu jël ndogal yu mel noonu dafay jar ñuy concerté wu bu baax tëju bu baax bu dee 15 jours bu dee 1 mois ñu tëju ko xool bu baax ci li ñuy dugg lan la ba nga xam ne bu ñu ko defee même bu dee dañ leen critiqué yëpp duñ leen critiqué. te gis naa coowal arbitre bi mu commencé léegi mhm. critique bi ci ñoom la ëppee ci seen côté CNG la ëppee kon yaakaar naa bu fekkoon ne jël na ñu war a jël seen ay matuwaay jàpp naa yoo demee noonu ndax population bi tamit kenn mun leen a nax mhm. seen i xel lan yor di xalaat ku ci ne bu ñu waxee di nga déglu version bu ne ku ci ne tamit di nga déglu li nga xam ne moom la ñëpp di wax kon yaakaar naa jaar na ñuy teey ci décision yi ñu jël ñu ciy tey waaw mais est-ce que tamit euh, ak ni mu demee nii jël des fois yenn affaires yi am est-ce que loolu tax ñuy asir jël ay décision parce que ku ci nekk ñu jëm la xamal sa place est-ce que jàpp ne loolu moo tax ñu koy def waaw non Babacar gis nga ak mbirum lu mu am am am lu mu garaaw garaaw lu mu metti metti dañuy jël suñu temps ndax am na ñoo xamante ni tey ñoo gën a fort tey CNG ci dogal muy boo demee tribunal da gis bu kaa amee mën ngaa ñëw sax ñu renvoyé la ñu renvoyé waat la lu war a loolu ñu ngi saytu li ñu leen jox ndax ni leen ko waxee noonu la demee waa demee wut noonu ndax ki ñu war a àtte ne ko yaa yaa yaa nekk ci toor est-ce que moo ne ci toor kon tey balaa tribunal bi jël décision dina ko càmbar càmbaraat ko càmbaraat ko mu jaar polis mbaa mu jaar gendarmerie teewul dinañ leen càmbaraat bu ñëwee biir tribunal laaj leen ñoom ba ku ne joxe li nga xam ne moo ne sa xol ñuy doog a san jël ay sanction yi jël ci nit ki ci nit ki kon jàpp naa ne mbirum sanction da yoo ne lu diis la gën nag ñi nga xam ne loolu jàng muy waa tribunal muy procureur yi gën ñoom ñooy jël seen temps ci loolu gën ñi xam ne ni mooy waa CNG ak lu metti metti rek mhm. war na ñoo moo jël seen temps boo xam ne ni tey bu ñuy joxee ay ndogal ndogal du nekk loo xamante ne ah, luy doy waar lay nekk wala luy métti askan lay nekk. am na ñuy foofu laay jeexale ak yow jàll ci Tapha Mbeur mi nga xam ne moom mooy tëj affaire bi euh, tey am na ñoo xam ne tey ci population yi ñeen ñi dañ naan Alioune Sarr na dem dafee yàgg ne na fi toog parce que li muy liggéey normal na yow ñaar yooyu boo boo boo ci tànn. waaw man nag Babacar bi ma ciy tànn mooy. du ma bokk ak ñoom ñëpp gis-gis. Hmm. maanaam ñi wax na dem ak ñi toog bokkuñu gis-gis ñi na dem ak ña toog man bokkuñu gis-gis ma ak ñoom. Hmm. xam nga tax bokkuma gis-gis ma ak Alioune Sarr am na njaboot am na ay famille am na li nga xam ne tamit mooy ay mbokk na xool bu baax ndax ñi ko dénk bëgg nañ mu toog wala bëgg nañ mu dem loolu nag moom moo ciy tànnal boppam mooy choisir boppam ñu ko dénk ba xam lan lañ bëgg ci moom ndax du état rek moo la dénk ndax état dafay benn mbir boobu ne dafay manipuler manipulation bu jubluwoo ci yow ñu xam ne yow la tànn nga war a jiite mais tey su état tànnee population bañ population bi dafay am doole ci kaw état lu am état am doole nag état dafay déglu population léegi nag côté boobu noonu dañuy bàyyi Alioune Sarr ak ñi nga xam ne ñoo bëgg mu dem ku ci ne xool li nga war a tànn wala li nga war a gëm en tout cas muy Alioune Sarr ne fi làmb day dox mu dem làmb day dox te it jàpp nañ ne làmb du benn kese moo fi nekk ne moo koy doxal déedéet Sénégalais yaa ngi fi am nañ expérience. am nañ xel tey jàpp naa ne tey su fekkoon ne tey candidat la ñuy def Alioune Sarr dafa war a dem ñun promoteurs yi sax jàpp nañ ne nañ am candidat boo xam ne war naa toog CNC toogal fa Sénégalais yi. kon yéen am ngeen pro yéen promoteurs yi am ngeen candidat. non man personnellement laay wax. waxuma ci cadre station wala ci cadre group dama ne. Ah. su fekkoon tey Alioune day dem. ñun am nañ kan wala man am naa candidat bu ma mën a propos sénégalais yi laay wax du mën a ñun dama naan man am naa candidat bu ma mën a propos sénégalais yi ne leen kii war a mën a jiite CNG mhm. te nit la koo xamante ne jàpp ne doo nit koy far fenn mhm. nit ku neutre la nit la ndayit nag vraiment mhm. kookal la ci lamb la moom ci lamb la bokk ci lamb la ci waaw non la wala ci lamb la bokk te jàpp sponsor la non du sponsor sponsor <laughs> mënta ne mënta ne la maanaam ku yor sponsor bokk non du ku yor sponsor nit la koo xam ne ni kilifa la te ci làmb ji la bokk. ci seen kuréel la bokk. promoteur non ci làmb ji la bokk laa wax te kilifa la. mais ci ban papa ci président amateur yi la wala. Babacar <laughs> du jànje ko wax. wala Pape Abdou Fall en tout cas non Pape Abdou wala Dieye ngay wax man Pape Abdou Fall bokkul ah, <laughs> wala wala Adama Bob ngay wax. wala Gora Ndoye Adama ma ko wala koy wax. non ñooñu ñëpp wax dëgg yàlla man ñi ma cité ñëpp yàlla xam ne ne Togo sax ñi ma cité man wala ki ma cité yàlla xam ne jege ñu ko ko ndax jàpp moo tax foogewu ma ko ndax ñi nga cité tamit vraiment war nañoo mën a yor CNG mais nag tey CNG war nañ ko jox koo xam ne nii comme compétence la am na ñuy wax Tyson de yow man gisuma gisuma Tyson vraiment li tax gisuma ah, Tyson Tyson mën ta jiite CNG non li tax gisuma ko hmm. mooy dafa am fu mu bokkoon ah. am fu mu dëkk hmm. te it am foo xam ne dafa dafa soso woon faran fa mu jiite woon bul fale alors bul fale di exiger ba tey comme bul faale ngi exiger ba tey nag ah ñun promoteur yi jàpp ñu sax war nañoo d'accord ku mel noonu di jiite CNG bi quand même. ku mel ni Mouhamed Ndao Tyson. Hmm. ah ñun man de gisuma loolu man. gisuma ne war naa maa jiite CNG. àndoo ci laal. non ànduma ci tey ànduma ci suba. ko tànnee nag bu bés ah. ñëwee ñu tànn ko. ñu xam ne sénégalais yi ko tànn waaye man tànnuma ko waxoon naa man bëgguma mu jiite CNG. et ndax hmm. bëgguma mu jiite ko nag peut samay principe bopp la. say principe la. kontaan ci yow sëñ Fall. ndax tamit CNG <laughs> du même porte kii ko waa jàpp mu koy jiite. Ah. pour man du dara nag mais comme jàpp naa ne dafa jiite ba pare bokk ci gox te dëkk fa ak ni Sénégal diggante Pikine Guédiawaye diggante Guédiawaye Parcelles rivalité bi fi am ñaan ñu ko yàlla mu jiite woon tey CNG euh, Modou Lo di bëre ak benn mbaru ñaan ñu ko yàlla làmb ji am lotis bu ndaw euh, sanction yu jóg dal ci waa Pikine dal ci waa Guédiawaye mbaa mu dal ci waa Parcelles euh, exemple rek laay joxe nag waxuma lu mën a nekk la mhm. te yaakaar naa man naa coûter cher trop moom ki nga ne moom nga wax moom muy Mouhamadou Tyson wala ku ko jege mhm. ndax dañuy jàpp ne dafa far mhm. jàpp naa ne yor benn fon benn fonction rek la war a yor ci làmb muy promoteur ci li jàpp. muy promoteur promoteur promoteur bu ñu di jiñal gisoo ko fenn boo xam président écrit la man gisaguma ko. Hmm. ko de tey ku mel noonu wala nit koo xamante nii def na formation sportive xam lu bari ci sportif ku neutre koo xam ne ni ku isolé wu la ak fu man dëkk nag mu dëkk Pikine mu dëkk Guédiawaye mu dëkk Parcelles fu man dëkk ci àdduna rek jàpp nañ ne bu ñu ko indee dañ xam ne kii def na formation bi mën na ko ba mu ay diplôme moom soxla nañ ko pour mu ñëw ndax làmb tamit loolu la soxla soxla ko koy yokk soxla ko koy avancé mais actuellement nii moom yokkut avancé wul yokkut arrière wul demul dikkul daal demul dikkul te nag soxla nañ koy demal mbaam koy dikkal koy dikkal ah waay jaari sëñ koo koy Fallou Ndiaye <laughs> waaw fii nag laay tëjee muy Tafa Mbeng defe naa moom ba tey moom ci Ndiaye production laa koy laaj lamb ji aj nañ ko aj nañ yëngu-yëngu yëpp Tafa actuellement ci wàllu xaalis ñaata ngeen jotoon a génne <laughs> waaw baaw kat santaat yàlla rek julli bi rek waaw di sant euh, suñu kilifa gi di Fallou Ndiaye mi nga xamante ne tey moo waral ñu teew fii nii wax dëgg fa yàlla tey di bés bu nga xamante ne euh, bésu képp kuy jullit la muy euh, màggalu Kazu Rajab bi te ñun ay murit lañ wax dëgg fa yàlla heure bi waroon nañu fekk Touba ci siyaar yeeg xasida yeeg yëpp mais ginnaaw murit ndigal te ndigal jëfe sëñ bi yëkkati woon ay kàddu ne fu waay mën na ne mën na ko foo féete moo tax tey euh, bi ñu toogee waxtaan waxtaanee suñu kilifa ne waa màggal gi ni muy demee mu xamal nañu daal li sëñ bi wax loolu loolooy dëgg. nañ tënku ci loolu waaye am na loo xamante ne tam su deekee mënta ñàkk it comme man maay sëñ Fallou rek benn la rek wax dëgg fa yàlla. <laughs> waaw ah, mooy turandoo bi daal mooy turandoo bi ngeen gane si ma rek ñu yaatal ko. am na solo màggal ko sant santalee ko suñu borom daal. wax dëgg yàlla. waaw léegi yow itam ci lu rek Ndiaye mm-hmm. production aj nañu aj ay yëngu-yëngu yëpp te defe naa combat yi bokk nga si ñu koy taxawal mm-hmm. euh, tey budget li ngeen jotoon a génne nii actuellement ci xaalis ñaata million la waa moom dégg naa bëri ngeen xaalis macha allah <laughs> loolu nag Babacar wax dëgg faa dañ ci dama ciy sant mbokk wala dañ ciy sant ñun waa Ndiaye production suñu kilifa gi wax dëgg faa ndax taxawaay bi mu war a taxawee taxawee na ko ndax tey jii nii ñoom ba ñëwee ba jàkkaarloo ministre bi mm-hmm. bi ñu waxtaanee moom ba génn rek dama yëg di woo ma ne ma tafaa ma ne ko naa mu ne ma lépp lu njaay production sumb jël leen ko ngeen teg ko ci suuf ma ne ko ah li nga wax ëpp na de ndax boobu sax xaw xamoon ni ñoom boobu yëgaguma li xew ma ne ko ah mais loolu nu mu nekkee ñun ñu ngi ci réunion yeeg dugg yeeg génni mu ne en tout cas daal arrêté leen lépp ma ne ko waa ah, d'accord mun nañ arrêté lépp mais ci naka mu ne ma ci ministre bi lañ nekk nii te dañ nekk ak ministre bi toog ak moom waxtaan ak moom mu wax ñu ci lu euh, jàngoro bi nga xamante ne moo tas ci àddina bi di ñaan yàlla yàlla na ko saafara mm-hmm. yàlla nañ ci musal waaye lépp li nga xamante ne tam médecin yi wax nañ ko ñu topp ko ba mucc mu caalal sunu morom daal léegi bi mu génnee bi ma woowee mu wax ma loolu ma ne ko ah loolu de dina ma xaw a jaaxal après si la ma expliqué nag dama dañ toog a bi te ministre bi la mu la mu waxtaan ak président bi mu ñëwee moom la waxtaan ak ñun kon ñun mënuñu def lu dul lim ñu lim ñu digal rek ñu toppee loolu ma ne ko ah waaye dina doy waate ndax wax dëgg faa li ñu ci def ci ay million ci euh, lamb ji ñu jëm ak yi ne ci kanam mun ne ah ma ne ko dafa bari te yow xam nga ko mu ne ma waaye benn ka benn kàddu laa lay wax te moom la ñu ministre bi wax ma ne ko ah muy la mu ne ma cas force majeure la cas force majeure nag bu amee nag wax dëgg fa yàlla pexe day jeex dañu def lu dul gëm yàlla nangu ndogal li di ñaan yàlla nag ñi nga xamante ne tey moo ñu ko joxoon bu ñu sumb ko ba tey mu mu mu dakkal ko ni yàlla nañu may lu ko ëpp ba ñu mën ko continuer waat ci jàmm ak salaam waaw mais wax dëgg fa yàlla moom ni ñu def ay million moom su ma ko doon xayma fu mu nekk nii moom bari na daal ah dina doy waat en tout daal métti na daal fu mu nekk nii daal waaye sant yàlla ndax jaam ak pexem yàlla ak dogalam daal am na solo Euh, kontaan ci yow Moustapha macha allah Babacar ñoo la gën a bëgg waaye yooyu tamit di rafetlu euh, sa disponibilité mhm. wax dëgg fa yàlla amul lenn lu nga xamante ne dañ la ko woo wala ñu nekk ci laaj la ci nga ñu ciy tànkamlu mhm. lépp lu ñu sumb ñu la ci laajee sa xel wax nga nu buñ la bu laajee ñu nga déplacé wu da ngay déplacé wu ànd ci ak ñun bañ jeex wax dëgg fa yàlla cant ak ngërëm ñeel na la te loolu maa ngi koy suñu kilifa gi toog nga xamante ne mooy suñu Fallou Ndiaye du ma du ma taay di ko ah. mooy suñu kilifa mhm. tey bu ñu demee ba fii wala ñoom loo xamante ne ñeme nañ ko tey ci mim réew Euh, làmb ji mm-hmm. wax dëgg fa la c'est grâce à moom waaw ndax jox nañu cër bu mat sëkk lépp lu ñëw mën nañu ah seen yëf la man sama yoon nekku ci mm-hmm. doxal leen lu ngeen doxal ànd naaj te loolu kilifa doon ko mën mm-hmm. te nit nag pour mu mën a pour mu mën loolu il faut mu wóolu la wax dëgg fa te lam lay wóoloo yow yaa koy liggéey waaw di ko waxaat ne na wax dëgg fa la bu tëddee na nelaw te xam ni lépp lu nga xamante ne dénk nañu ko mm-hmm. wax dëgg fa yàlla nañ ci bay suñu waa ba mu mat sëkk kontaan ci macha la waaw waaw waaw noonu lay demee kontaan ci yéen bu baax a baax kontaan ci waa Ndiaye production di wax ne ak Leewtoo TV moom lamb rek la ñuy def cent pour cent promoteur bu mag ba ci bu ndaw ñëpp benn lañu parce que bu dul promoteurs yi comme ni ma koy waxee rek lamb du am